ak fàttali gi ñu ciy def ak labiré gi nga xam ne moom la ci Baye Diagal TV di def loolu moo waral tey jii ñu ñëw ci place Serigne Fallou Niass mi nga xam ne bokk na ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite daairatu sukkulu salaam daa daairatu sukkulu salaam lëkkale ay ouvrier yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu oto ay mécanicien ay tôlier ay soudeur ay gonfleur ay électricien waaye ñoom nag ñu jaayante ak xaadim rasul ci bisu màggal gi bépp oto boo xam ne dafa paan ñu dem fa dépanner ko te du fay benn dërëm te loolu dañu koy def ci mboolem Touba ak li ko wër wut ay barab yoo xam ne dañ faa teg ay nit teg fa matériel boo xam ne képp ku paan te féete ca zone booba ña fa nekk dem fekk la fa euh, dépanner la waaye lëkkaloo ak geneen kuréel goo xam ne dafa ëmb Sénégal ba mu daj ñu koy wax REVA momitam mu couvrir mbolam Sénégal ba raison bo meun di jógee bu Dakar la ba ba ngay axe djourbel amna na ñu la mën a bu fekkee da nga jógee Ndar ba ba ngay axe Daaru Muxti amna na ñu la mën depane. bu fekkee da nga jógee Fuuta jaar Daara Linguère ba ba ngay axe Daara amna ñu la mën a bu da nga Tamba wala kaolax wala yu mel nonu ta jaaré route Kaffrine bi ba ba ngay axe Mbar amna ñu la mën a dépanner fi ak yoyu ma tuddu nak ku fi am jafe ñom ñoom ñu la mën a léegi nag ak xataayu jamono bi ak jafe-jafe yeeg màggal gi ak yu noonu te oto yu bari yu ciy def ma ñëw bëggoon a waxtaan ak moom mu laabiire chauffeur si nga xam ne dañu yore ay auto transport moo xam bus lañu yor wala ay minicar wala ñu wala ñi nga xam dañu yor ay particulier te gaare ko lu yàgg war a xëy xëy dawal ko gëdd ko te defuñu entretien ci oto bi bala moo départ vérifier seen pneu ak seeni i ak itam Touba den dafa dafa dafa taw te xam ngeen ne oto yu bees yëpp courant la ñuy doon te oto courant du sëmb te ron ndox mi dafa bari lool te oto yi li ci bari itam dañoo jege suuf te ku ne xam na yoo ne yoonu nawet ak taw bi même bu fekkee ne du taataay ndox itam suuf si day bëluus ba nga xam ne oto yi bari dañuy jege suuf ba mu bari oto yoo xam ne mënuñu daw ci biir dëkk bi te dëkk bi daa fees dell akum ndox yii nag moo taxoon ma ñëw tey jii bett sëñ Fallou Niass am ak moom jataay waxtaan bi mu waxal ñu ci turu waa Suklu Salaam ak waa Reva yan matukaay lañ jël pour maajale ko leen yan conseil lañuy ñuy joxe ci ñu wara def entretien ci seen auto ak kenn ku ne façon auto bi nga yor ba nan la nga ci wara mëna liggéeyal Serigne Touba ba nga xam auto bi du pan ak képp ko xam pan dab na la itam bo len woyé ñu mën la fekk fa nga nekk dimbilé la Serigne Fallou ñi ngi lay nuyu ci turu Baye Degal TV. auzu billahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim biñ santé suñu borom jullu ci yonenté bi sante Serigne Touba ñu ngi lay fay Baye Degal TV ñu ngi len di fay di len nuyu di len santit di len gërëm di nuyu président sublu salaam bi président bi nga xam ne sëñ Saliou moom ñu boole woon muy sëñ Mbacké Dabe Sarr sublu salaam sëñ sali moo nu ko joxoon yàgg ko ci liggéeyal ba ba heure bi muy mécanicien yi nga xam dañoo nekk Touba ak Mbacké ñu seq ko di liggéeyal Serigne Touba liggéey sëñ Touba boobu nag dañ koy fàttali ko toujours ndax ci jamono sëñ Sall lañ ko commencé di ko liggéeyal euh, euh, tracteurs yi ak ak di ko liggéey xel koom mu bég ci lool sëñ Tuubaa woote ci ñu sant ko suñu borom ñun amuñu lu suñu xam-xam suñu xam-xam bi ci ni ñuy sant suñu borom ñu àndandoo ci nag daayira Subul Salaam bi nga xam sëñ moo nu ko joxoon ñu ciy sant suñu borom fas yéene bu màggal jotee ñu wër Touba def ko lu mat 14 zones yoo xam ne dañ ci euh, ay points ya ay chef de fa nekk ñu fiy liggéey Serigne Touba oto pan ñu dépendre gratuit doo ci fay dara ñu ànd ko ak waa Revas Baye Ali yàgg nañ ko ànd ak waa jànq ñoom. ñi nga xam ñu ngi dëgg dakaar nga xam ne dañuy lëkkaloo oto panne 14 tonnes yi nga xam ne moom lañ yor moo wër Touba nga xam ne fenn fu ne ab chef de garage moo fa nekk soo oto paane su fekkee jot nga numéro bi ñu lay jox bu ko dee dina seet nunu la dépanne ca doo ci fay dara gannaaw loolu nag balay loolu nga xam ne ñu ngi ci waajtaay ñu ngi wax ne bàyyi dañuy conseil chauffeur si nga xam ne bëgg na ñëw Touba chauffeur buy ñëw na def entretien otoom ndax entretien bi moo am solo hmm. ndax oto yi dafa nekk oto yoo xam ne nii oto yi néew modèle la auto yi dépanne dafa xawa jafé té mbéd yi dafa toy ren dafa toy ñuy wax né képp ko xam yor nga auto bëgg ñëw magal suba na nga def entretien sa auto na nga dem ci sa chef de gare ba lay liggéeyal mu xal la sa auto defal la entretien bi bu baax xol croix yi moteur bi xol radiateur bi pour surtout surface ndax mbéd yi dafa am ndox yene dañ ko sëkk ci bu ci auto jaaré mën naa wàcc ca bëlisee du ko doo la ko jël ndax ah, da nga pan pan bo xam mécanicien bu ñëwé sax du ci mën da ndax auto fa muy dugg tax moto kuy dugg tuwa na nga xol mbéd bi ngay jaar su fekkee am na ndox na ko teggi bu fekkee mënoo mën a ñàkk na nga gaar oto ba jël sa tànk ba ba nga départ mais boo forcé rek mën nga waa paan paan boo xam ne te day xat pour ñu agsi yow dina xaw a jafe kon loolaay conseil bépp chauffeur boo woon boo ñëw na nga yor ndox xool sa oto ñu defal entretien bi nga xool ko ba nekk oto bi am point nga xool say pneu dafa am pneu nawet noor dee pneu nawet bu laalee ndox day day day day day day day gondule pneu bon pneu boo ko daalee ci ndox léegi day gondule fi ndi feer bi tàngee boo ne pneu bi toj loolu nag dama ko sum bokk biis nga xam ne ñooy transport nga xam ne oto bi dafa nekk oto boo xam ne noor la doon daw bu dee pënu noor da nga koy ndax bu dee pënu nawet bu tàngee rek day gondole su gondolee rek a na problème ñaareel ne jaar appuyage bu nga jaar appuyage nga xool oto nga xam ne nii mën naa jaar appuyage mënut a parce que oto bu yëngatu nga jaar ko appuyage di ko dawal sanwe mën naa dem jafe-jafe boo xam ne nga gàllankoor ñu bari ndax appuyage bu ñu koy wax mooy oto bi dafa nekk point ni tali bi mel noonu la oto waaye nga yor boo xam ne gën nga koo dawal ba un mois deux nga xëy rek jaale ko ci ab pièce mën nga am jafe-jafe ci nun ñu ko dépense sax bu ñu demee mën nañ faa yàgg loolu laay conseil chauffeur yi nga xam ne maa leen koy wax ci sama xam di leen ñaan ñu màggal màggalu jàmm léegi nag liggéey bi dañ ko séq ak waa Réfas ba jegal dañoo bëgg a coordonné ñiy liggéey ak euh, su daayira bi nga xam ne nii mu ngi fii mooy nooru daayira ñu nekk fi Touba nga xam dañoo bëgg lëkkaloo waxtaan ñu gan gani Sëriñ Touba yi ndax ñun amul lu may Sëriñ Touba comme bu maag la jub see nag dañoo bëgg léegi ñun ñëpp ñu taxaw ci oto paan dina la dépanner te doo fay dara waaye nag boo paane itam na nga def ndànk ndax fa ngay paan mën na am du fa gaaw mën a àgg doo do fa naa mën a àgg ndax liñ bëgg nga xam bu ànd naam oto bii ñu yor nga xam ne ñu ciy gërëm Pam Ndiaye mécanicien bi jox na ñaari 4x4 yoo xam ne depuis boobaak léegi ñu ngi oto bu jee 12 millions nga jox ko moom wàcc na depuis moom ñoo ngi ko ci waay liñ bëggan nag mooy ay moto lañ bëggan moto yoo xam ne bàyyi jégal dina ma 5 mo 5 moto cënk moto yi da ko def garage bu ne ci woo Touba nga xam ne ba paane day gaaw loolu ñu ngi koy ñu ngi koy méb bëgg nañ ko nun daal amuñu may Serigne Touba fas yoo xam ne ko liggéey euh, pèlerins yi te doon fayu dara kuy ñëw nag li lay conseillé daal sa oto ba nga xam ne sa oto baax na a na dépannage gratuit mu ngi ci yoon rek naa bi ndax mën na lay dépanné moom mën na fa sonn ci bu ñëwee du la ak ñi nga xam ne dawal nga sonn ba agsi am lu yëngu rek nga naa leen woo day jafe oto yi fekkee daa nekk place nga xam mën nekk foofu fu ne woo des na fay oto ba ko te doo fay dara ak ñi nga xam ni euh, ñu ngi ci ñu ngi ci point yi foofu itam ñu ngi ci dox bind na sous préfet lettre ak ak préfet pour mën a demander ñu ay ordre mission ndaxte bu ñu am ordre mission doo mën a dugg ci dëkk bi li ñaan mooy autorise ñu jàppale nu ndax ñun seriñ Touba li ñuy liggéey ndax magum jëm bàyyee ay ganam bàyyi ñëppam yor yor di dépanne kooku moo yow ànd ñu laabile nu ñu xool mécanicien yi ñu ngi leen dépanner ndax mécanicien yi dinañ yor siile dinañ yor bas dinañ yor matukaay woo xam ne boo léegi sama leen xàmmee te képp ko jox sa oto nga xool ka nga ko jox ba xam daan defee ko ba xam mooy kan boo ne jël sama oto ma ko joxe rek ci xamoo kooko na nga ko dandi fi xam ba xam moom mécanicien la wala fu mu nga soo ko jox sa oto équipe yi ngeen di yóbbu tam yaakaar naa ne dina lëkkale mécanicien électricien ak yu demee noonu ndax xëy na léegi oto yu ci bari dañu am problème mu courant mooy lañ moom la ñuy faral di am te yaa ngi tudd rek mécanicien ndax oto bii dem di dem di di seeti ki otom panne te xamut lu mu moom bu ngeen di dem di ngeen waajaaleel yóbbaale électricien boo xam ne dina mën a xool oto courant ak ak mécanicien yóbbaale suudar nga xam ne dana yóbbaale bagage yëpp nga xam ne bu àggee rek dana ko mën a fekk la ci toppaatit moom mooy oto boo xam ne li paan pièce bu ñu war a changé la ndax da ngeen di yor ay pièces ndax client ndax borom oto bi mooy jënd pièce bi ngeen monteel ko ko ak ñi nga xam ne sax seen oto vraiment dépanniwul woon waaye oto bi daa yàq woon ñu war koo defar loo xam ne lii moom xel xalaatul woon sax oto bi ñu di ko yëkkate ba dépannage sur la route la oto yi panne ñu war ko dépanner réparation dañ ci garage suñu xoolee ba xam ne oto yi dafa am réparation nga xam réparation dina wax borom oto yi dafa laaj réparation bu tëj otoom ba màgg ak yàlla ndax am na réparation boo ci duggee da nga tardel jàmm da nga ko nga tardel ca doo dem répar dépannage nag mooy oto bi yor ay ay pèlerin ñu war a màggale ay bagage ba nit ca yoon ñu woon koobu dañ koy dépanner waa oto boo xam ne agsi ci biir kër ba mu ci kër na bàyyi ba tey ndax ci fooy itam dina dimbali dimbali ñuy dépanner ndax léegi nag nit woo la lay woo bala nga dem ba yegg lam lay wax jëroon nga fay ñëw waaye doo mën a ñàkk dem ndax woon na la loolu dañ ciy ne képp xam ne sa oto agsi ci kër ga mu nekk dugal ko ci gaara ba pare su fekkee ne mi ngi ci sur la route dina la des na la dépanne pièces yi itam euh, euh, chauffeur yi kii borom la lay dépanne dinañ am lëkkaloog jaakati pièces yoo xam ne oto boo paan dañuy dañuy téléphoné bu fekkee ne xam ne pièce boobu dañ la ko da ko yónnee boo gisee ñu ne moto yi dajee baax mooy moto bi daa gën a gaaw ndax oto yi boo yebalee benn xale bu demee fële ñaari xale mën nañ faa dem su fekkee kenn ki mën na ko dépendre paane pièce benn mën naa ji moto bi jël jël pièce bi am facilité boo xam ni il faut que ñu ci jàpp ci ndax liggéey bi ñun moo mënu ko ndax mécanicien yi seen atelier lañu yor ganale seen i gan ba pare gasoil bi ñuy def kenn ku ne dee ko 5000 francs pour nga jënd gasoil ñun ñoo ñëpp ñoo ko def ci ku ci sa oto paan da nga fexe da nga fexe ni ko dépanné kon nag dañoo wax ne kenn kuy ni nga dugal sa loxo ndax liggéey moomu ko bàyyi jégal moomu kenn moo ko Sëriñ Tuubaa moo ko moom te Sëriñ am suñ doole kon nag nañ ko ci jeex ba mu jeex tàkk ndax bi Sëriñ Tuubaa nun buñ sañan luñ ci nekk ñoo ko def waaye nag comme noonu am suñu xam-xam dañu féete oto buy paan dinañ jéeg xool dépanné ne nga ba nga dem ak jàmm jigéen jàmm ñu ñaan suñu borom màggal gi dàq màggal gu ma sa ñëw ci barke Sëriñ Fàllu xanaa nga joxe rek numéro téléphone yi nga xam ne waaw euh, bu dee fii secteur bi mu nekk. 627 53 81 foo ma jotee naa la orienté bu dee Dakar la wala feneen daa xool ku la dépendre mu dépendre la kooku mooy man mi nga xam ni man dañuy man damaa kii kii rek laa yor toujours ku paan danaa la boole koo xam ne dina la dépendre mooy 627 53 81. tigo bi mu nekk 682 48 73 mooy tigo bi. 682 48 73 mooy tigo bi. maa ngi sant lépp di gërëm. di leen ñaanal itam euh, nii ngeen def noon la mooy nit boo xam ne yaa ngi liggéey ci waat wi euh, nga gis ñu ciy liggéey nga boole leen ci ñëw ci ñoom loolo mooy doxal parce que lii ngeen def bu ñu ko defee ñu baree bari dimbal nga leen ñu ngi ñaan suñ borom euh, lii ngeen ubbi mooy mu dem a dem ba monde bi yëpp jàpp ci ngeen di liggéey sëñ Tuubaa ba ñëpp gis ko ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne nii may nañu fekkee ren ca mënoon nanoo bokk ci ñeneen may ñu fekkee ren ñu ñaan ko fekk dew ñu baree baree ba ànd ko sëñ Muntaxa ci liggéey bi ñu liggéey sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa nangul na ko ñu ànd ko moom liggéey ko at yu baree baree maa ngi woowe mboolem mécanicien boo xam ne yaa ngi diggante Mbàkke ak Touba ak foo mën a nekk dañuy wax ne même boo doon fayu sax liñ bëgg mooy Touba bëggatul mécanicien tëg ci gërëm bàyyi oto bay gaarasam na fa dem diñu déglu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh mbokk yi seetaan Baye Diagal TV noo ngi leen di sant baax di leen gërëm lii la ñu leen jëlal si woon tey fii ci euh, place Serigne Fallou euh, Niass mi nga xam ne moo jiite daairatu Suglu Salaam lëkkaloo ak waa Rewas te ñoom dañuy liggéeyal Serigne tubaa ci biir màggal gi bépp oto boo xam ne da nga paan danañu la dépanner te doo ci fay benn dërëm liggéey bu toll noonu nag yàgg nañu koo def nii ñu ko defee fii ci màggalug tubaa na la ñu koy defee ca màggalug euh, Poroxaan noonu la ñu koy defee ca màggalug Daarul Muxti noonu la ñu koy defee ci gàmmu gi ne la ñu koy defee itam gàmmu Tiwaawoon ni lañ koy def sax même Popenguine dañ leen joxoon ndigal ak Thiénaba ak mbooleem këri diine yi lépp lu saa yu ñu xewlee ñoom dañ fay dem liggéeyal fa Serigne Touba ci dépanne képp koo xam ne daa paan ci bisub màggal gi noo ngi ñaan nag sun borom may leen kattan ak wér ba ñu àggale seen i mébét te it liggéey bi ñu liggéey Serigne Touba ñu làq ci ngërëm te ñun ñuy béral seenub liggéey itam sunu borom taas ci seen barke te may nu ci seen ngërëm ya lii lañ leen indi tuuti ci lu bàyyikoo ci lu bari salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh